waaye Ndiaye waaye Mbagnick waaye waaye Mbagnick waaw Mbagnick waaw Mbagnick yow dégg naa <laughs> ma xewati yàgg jeunesse na nga ko mere war a Mbagnick lan la te dégg naa Mbagnick yow commandé nga benn way bi Sénégal dugalee un dégg naa woo nga benn xarit bu nekk ca Brésil <laughs> boo xam ne dégg na ko fental way pour senegal buy senegal di dugg ci Brésil ah il jeex kaay lañ xool Mbagnick regna fon antal noxen mbanjik njaay gis nga Sires dama bëgg nag ngeen ngeen taxaw ngeen témoigner ma sama diggante ak Sires nag ndax ki duma ko fi bàyyi muy toog di ñu xujju bëte ne bëtu looy gis nga Sires wax naa moom ñaari wax ndax am na koo xam ne def maa woo téléphone ne ma Sénégal dina dugal ci série de pénalty ci bu ko dugalee li ma wax mooy nañu jël li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy weewu ñay bi nga xam ne dañu ko jëlee ba Côte d'Ivoire nañu buñ ko jëlee xooj ko takkal ko ki xale yi ki war a dugg remplacer keneen koo koy to temps yi bi ma yónnee yónnee weewu weew bi di ko wax mu naan mënatuma génne remplacer ndax ki war a dugg dugg na ba pare ma ne ko ki war a dugal deuxième bi kay mooy ki war a sangoo weewu ñay bi ndax sëriñ bi lu leer la ñu waxoon waaye nag doo fi nekk ne mu taxaw di di di ma jaay gattaay ak xob ak xonk yaram ak bëti looy neexut di ma xool naan ma les africains votre coréage xaw ma gëwuma ko gis nga gis nga gis nga dinaa ko wàññi ci salaire am billaay dinaa ko wàññi ci salaire am ndax deuxième bi bi daf ma leeroon nañ sama man boo xam ne maa ngi ànd ak moom ni ndax man mënu ma nekk séeréer ci ndey ak ci bay Faajut Joal ndong ndong ndol ndol Bambey Bambey séeréer Siin Fatick ak ak ak Tataguine dëkk yu bëri de séeréer yu bëri yoo xam ne ba ma leen woowee ne leen match bii de def lañ ci seen xalaat dañ ne ma de bu soobee yàlla am na way boo xam ne ñun séeréer buñ ko wayee ba ñëpp dégg ko Sénégal dugal bi bi ñu dugalee fubale fubale ba kanam gisuma ñu dugal ma yëkkati sama téléphone woo ki nga xam ne moo toog ci yande ko du njaay yand ko dafay ne ko ana way bi def ko way ma jël ko teg ko sànni way bi ci kanamu ci nopp joueur yi muy dem ngelaw gi di ko yóbbu xale yi di ko forantu tuuti loolu leen may jom ba ma ne ko nag ñaareel bi mu ñëw mu ne ma léegi ma dugal ko si des bay wax ak moom mu ne ku taxaw ne du def loolu du génne kenn dugal kenn moo ñu ko xaj te du yéen woy bii nga xa xaaral rek na fan ma ma seqaate ko ana waxa léegi ngeen xam ci dara da ngeen xam ne ndax kii li muy woy woyu caaxaan la wara du woyu caaxaan allo nek na ka fo jawal faaka faafaa jut inna ko toog dama bëgg nga woy ñu xam ne woy bi nga yëkkati soo ko woyee jambar bu ko yëkkati nga bu dee séeréer nga koo bëreel daan ko. yaa jabaroo yaa jabaroo yaa jabaroo rek reful an na kaka foog ne takkat yaa jabaroo yaa jabaroo yaa jabaroo Sadio Mané Sadio Mané Mané Sadio goje goje goje bugun bum yaa pulay dunde Moussa Sow rek reful an na kaka Sadio Mané bugun bum yaa pulay dunde Sadio Mané rek reful an na kaka tilo ko wada boda dia da baja yoro buna kundul kundal na kafa na fa hana tikko tagom gaynde gaynde gaynde bugun bum yaa pulay dunde bilobot nakafana kono jilobot fanaba yaa pulay dunde mbanya nya jaro na ragun mbanya mbanya ro da che wu gaynde na kono ko bana ba ta wana kono damdo damdo na bana bana tikno ta ko gaynde gaynde gaynde bugun bum yaa pulay dunde kon jile damdo na ko ba gaynde bugun bum yaa pulay awa hande no ta na ko ba gaynde bugun bum yaa pulay dunde gaynde gaynde gaynde bu gun bu mu dam lay dunde gaynde na na na gaynde na na na na ya gaynde gaynde gaynde bu gun bu mu ya bu lay dunde jërëjëf jërëjëf gis nga lii la lii la ñu xañ era ka faaxana teg na toog na ko ka taxna am na loo xam ne doo ñëw ci dëkku jàmbur fekk ñu koy def aada cosaan nga ne du ko def ma nga de woona ma yëkkani woona ma séeréer yi papi général sax jox na ma galaj ne ma tekki tak Modou Lo jox na ma galaj ñoom ñëpp ku ne jox ma galaj ne ma buñ ko joori takkee gañe may wax ak Ziras mun a xut di taxaw ak bët yi mel ni bëtu looy gàttaaya ma koy wax mu ne du ko def ndax du génne kenn dugal ko rek na fan senn ko tig na tax na tig ko faaxo tak na an ko foq na tun kana séeréer kay naa ka faaxa ndef len ndef leng ndef len fooxa na ko fooxa an ka faaxa tokra ri ko na ko géwéla faaxa tik ko wada ko na fa na tak na wada ka wada na taxa